loo xam ne wax na ko si bi ñu ko laajee ci lu jëm ci wàllum institut yi maanaam lu ci mel ni ville bu ndakaaru président Macky Sall daat nay dëggal ne ak soppar ñi dina ci am maanaam réformé daat nay wax ne amul lenn loo xam ne laaqu na si lu jëm ci wàllum politique ñu laaj ko ci lu jëm ci wàllum nguur jigéen gi xam ne wax nañ ne dañu koy dugal ci lekkool yi moo Macky Sall wax na ci lu leer nee na amul benn yoon boo xam ne loolee waxtaane nañ ko te kenn ñi mu ko def ci réew mi tànk maa nga nekk ci bopp réewum Sénégal fi am te ñi nga xam ne ñooy waa UNESCO bu dee loolee mooy seen bëgg-bëgg na leen leer du am ci réew mi amul kenn koo xam ne maanaam mën nañu ko imposé loole dama bëgg askanu Sénégal gi yëpp dalal ci seen xel kàddu njiitu réew mi la yéen a kaay gii di Walf Fadjri ñu jàngee fana njiitu réew mi ci bi wax na ne ab parquet financier la bëgg a teg ci réew mi journal bi nee na xanaa loolee mooy gas ba mu xóot nga daal di suul li nga xam ne mooy cré yi ndax njiitu réew mi nee na parquet financier boobee njariñam mooy képp koo xam ne njort nañu ne dangaa luubale alalu askan wi ñu daal di koy lëmbat yéen a kaay gi daal di xëy wax ne Macky Sall discours boobee dafa nekkoon janoo ak askanu Sénégal di autoglorification maanaam Macky Sall nganda ngandalul la Macky Sall doon def yéene kaay gi di critique daan nay wax ne Macky Sall am na ñaari waxtu yoo xam ne jana na ko ak askanu Sénégal di bajantu maanaam di def ab show yéene kaay gi de la Tribune nee na Macky Sall en li am ba des sall li wax bëri na wax na ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi ay infrastructure yu mucc ayib énergie agriculture ak lu soxal wàllum xëyum ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñooy jigéen yi moom président Macky Sall nee na du yàlla du yàlli ba lépp loo xamante ni naal na ko ci réew mi mu daal di koy réaliser nee na li mu naal koo réaliser moom président Macky Sall ndax nee na du yàlla du yàlla yi ba tey ci biir yéenekaay gi moom Macky nee na code de la presse décret d'application yi weer wi danañu ko daal di siffee yéenekaay du source a nee amul lenn lu yees lu bees lu président Macky wax ci discours bi maanaam répétition kese la Macky Sall doon defa Macky Sall ci boppam da doon tàngal ceeb waaye nag ñi nga xam ne ñooy mbër yi mer nañu lool lool ñoom mbër yi ndax amul benn yoon boo xam ne Macky leen ci discours bi yéenekaay gi de l'Observateur nee na en tout cas lu am yi nee nañu Macky Sall waxu leen lu bees waxu leen lu bees li fi Macky wax rek la fi waxoon daaw te ba léegi nii bëri na ci loo xam ne amul yenn saafara ñi nga xam ne nag ñooy yëngatu ci lu jëm ci wàllum napp gi pêcheurs yi ñoom tey jii danañu amal réunion élection locale yi Macky Sall biñ ko ci laajee nee na élection yi duñ ko fit amal benn yoon tànk na ko audité wuñ fichier bi bam na korora ca ndax coow lu bëri li nga xam ne maanaam moo ci amoon ak metti sénégalais yi si la ñuy gën a tumuranke ndax ñi ñu dénk réew mi liggéeye ñoo moom Abdoul mbay ndax day wax ne économie réewum Sénégal dafay gën a nërmeelu Karim Wade doomu Abdoulaye Wade sa sakkataar moom tam dugg na ci mbir yi nee na Macky Sall fi nga xam ne fi la ko askano Sénégal doon xaar amul benn yoon boo xam ne Macky Sall fekk si ne leen sa maanaam déception totale askanu senegal dañoo am sax mbetteel ci Macky Sall ndax mbooleem loo xam ne digoon na leen ko France lu jëm ci àq ak yelleefu doomu lépp dañoo gis na président Macky Sall daf koo poñe nga xam ne moom la doxalee réew mi amul lenn loo xamante ni baax na ci yéen kaay gi di Dakar Times nee na en tout cas lu jëm ci wàllum éducation sexuelle ci école yi ministre bi ñu dénk wàllum njàng mi ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi waxuñu dëgg gi yépp yéen kaay gi di L'Observateur xëy génn ñu Dakar yóbbu ñu diwaanu Louga di ñu fa xibaar lu doy waar dafa am benn menuisier boo xam ne 60 am benn xale bu jigéen boo xam ne fukki at juróom benn la am la violé waaye la sa doy waar mooy xale bu jigéen boobee àndul ak xelam këram la ko dugal siim ak moom mari ngaañam ba muy génn la ko ay élève gis élève yooyee ñoo ko boole